Alousseyni Keita maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Alousseyni Keita nga nekk chargé de communication bu Pastef ca euh, commune bu Niaguis déjà ma lay wax ci tànn bi nga xam ne euh, président Ousmane Sonko moom la tànn pour ñu parrainer ko Bassirou Diomaye Faye lan nga ñu si mën a indil ay leeral. lu ma ci mën a indil mooy di ñun patriotes yi on est bien organisé on bien civilisé et on attend lu ñuy xaar mooy diggal. lu ñuy xaar mooy si supérieur lu ñu wax loolu la ñuy te depuis lool si digg suñuy supérieurs yi maanaam si kàngaam yi dañ ñi toog ñuy xaar te comme que suñu kàngaam yi wax nañu ni pour ñuy pare Bassirou Diomaye fa loolu amul benn problème amul benn sikki sakka patriote yi pare nañu pour pare ne euh, euh, Bassirou Diomaye fay pour parrainer ko euh, léegi euh, parrainer Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye fay mooy plan B bi est-ce que mën nga si indil ay leeral. non bu ñu nee Bassirou Diomaye Faye du question mooy plan B parrainage la ñuy wax du candidature parce que ben léegi candidature Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko valable na. du coup président Ousmane Sonko ak ñeneen kàngam yi ñoo ni ne pour ñu parrainer euh, Bassirou Diomaye Faye et loolu pare nañ ko pour ñu parrainer et dinañ ko parrainer parrainer incha allah si deux millions voire trois millions de de parrain loolu dinañ ko indi te xam nañu ni am nañu jot ni loolu dinañ ko ëpp parce que sénégalais ñu ngi toog depuis lors parrainage commencé na mais lan la ñuy constaté sur le terrain gis na ne sénégalais yi dañuy toog di xaar kan la ñuy xaar mooy le président Ousmane Sonko te président Ousmane Sonko ak ñu mu àndal. joxe nañu digal pour ñu parrainer euh, basir Diomaye Faye dinañ ko parrainer loolu amul benn sikki sàkk te dinañ ko parrainer ba sénégalais yëpp xam ne euh, basir Diomaye fay mooy euh, moo kooku la ñuy tal na pour ñu parrainer ko mais quant à candidature ba léegi candidature président Ousmane Sonko mu ngi en vigueur te am nañu yaakaar ni président Ousmane Sonko il sera dina doon candidat Pastef Euh, léegi lan moo tax ngeen euh, fixé wu objectif ay euh, deux millions de parrains trois millions gis naa ko ci réseaux yi yi pourquoi cet objectif en fait lu ko waral. parce que loolu la ñu gis ci askan sénégalais sénégalais lu ñu doon xaar lañu doon ne ñoom pare nañu pour parrainer le président Ousmane Sonko te Bassirou ay fay mooy usman Sonko te sénégalais ñu ñu wone ni pare nañu pour parrainer Ousmane Sonko ñun bu lu ñu jot ëpp na trois millions donc ñun bu ñu waxee trois millions maanaam lu ñu xalaat dina ëpp trois millions te bu tuutee ba tuuti moom dinañ am trois millions de parrains. d'accord léegi ñu bëri di laam-laame naan euh, plan B wu Pastef du Bassirou Diomaye fay comme ni ko ñu bëri xalaatee maanaam candidature Sonko bu jàllul Bassirou lay ñuy jàllale ñu bëri sax gis nañ ni Guy Marius Sagna réellement moo seen plan B loo si tontu Alioune Seyni Keita Oh, madame am nga nit ñi. waaw am nañu liberté di xalaat lu leen ne te loolu mooy démocratie loolu mooy liberté d'expression ku nekk da nga nar a am sa xalaat da nga nar a toog nga xalaat bu baax mais loolu yëpp lu ñuy xalaat ñun lu ñuy xalaat ak lu ñuy jàpp mooy lu président Ousmane Sonko wax actuellement ñu pare na président Ousmane Sonko lu mu wax mu ne nañu pare ne parrainer euh, Bassirou Diomaye Faye foofu la ñuy tollangum lu ci kanam rawul gët. te xam nañ ne suñu candidat mooy président Ousmane Sonko parce que yoon may na ko pour mu doon candidat te sénégalais yi du ñu nangu benn yoon ni ni beddi Ousmane Sonko mais actuellement lu ñu mën a wax mooy Bassirou Diomaye Faye la ñuy parrainé te dinañ ko dinañ ko parrainé ba trois millions voire euh, plus de de parrain loolu incha allah yi parce que sénégalais ñu ngi toog dañuy xaar. Hmm. kon malgré boo gisee sur le terrain boo ah. xoolee sur le terrain parrainage commencé na depuis. mais doo doo doo sentir engouement parce que sénégalais dañu ne teg di xaar président Ousmane Sonko lu muy wax président Ousmane songo wax na ba pare léegi nañu xool fan yi terrain bi nu muy mel te nañu parrainé parrain parrainage boo xamante ne bu mujj bu musul am si Sénégal loolu la ñuy am ci Sénégal. en mooy seen objectif te te Alioune Seynou bu ma la mm. déggee yéen ba léegi gëm ngeen ni euh, c'est vrai yéen a ngi def focus ci euh, Bassirou Diomaye fay pour parenage bi mais gëm ngeen ni Ousmane Sonko ba léegi mooy seen candidat. ñun gëm nañu ko ñun patriote te sénégalais tamit gëm nañu ko parce que sénégalais ñoo tànn Ousmane Sonko du patriote kese am na ñoo xamante ne du bokkuñu si benn langue politique. mais ñoom Ousmane Sonko la ñuy àndal parce que kooku la ñuy gis koo xamante ne mun na dàkkal euh, jafe-jafe sénégalais yi te sénégalais yooyu ñu ngi xaar Ousmane sonk te incha allah sénégalais yooyu dinañu voté pour Ousmane Sonko du coup Ousmane Sonko candidature Ousmane Sonko ba tey fu may wax ak yow candidature am dafa valide te sénégalais du ñu nangu benn yoon ñi ñi daal di beddil candidature Ousmane Sonko te parce que peuple sénégalais peuple la boo xamante ne dafa mature peuple la boo xamante ne xam na fu muy jëlee décision ak naka la koy jëlee. waaw beneen laaj aussi euh, euh, donc juridiquement aussi am na ñuy wax ni Pastef parce que Pastef dañu ko tas tas bi sax gis nga ni cour de justice de la CEDEAO dëggal na ko euh, taxé ko d'entreprise terroriste ak yeneen ak yeneen ñu ne juridiquement est-ce que Pastef mën na am candidat maanaam est-ce que Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye Guy Marius Sagna Alioune Keita El Malick Ndiaye ak ku mënti doon est-ce que mën na euh, représenter Pastef ci élection yi juridiquement lay waxee. waaw juridiquement mais tey. Sénégal nu muy doxee bu dee yoon lañuy wax amatul yoon parce que lépp lu ñuy def. lépp luy Ousmane Sonko nekk di jànkonteel lépp luy patriotique nekk di jànkonteel lépp luy sénégalais nekk di jànkonteel loolu c'est pas la justice c'est la justice te peuple sénégale comme ni ma la ko waxee peuple sénégalais moo tànn Ousmane Sonko pour mu doon sen candidat te peuple peuple sénégalais est souverain le peuple qui est souverain te peuple bu décider kenn mënu ko tere te peuple bi décider na pour Ousmane Sonko doon seen candidat donc juridiquement bu ñuy wax. foofu bu fekkee ne juridiquement juridiquement la ñuy wax bu fekkee ne bu wax instant bi Ousmane Sonko place prison dañ ko nar a mais loi amatul si dëkk bi loolu nañu ko waxte dee. waaw beneen question euh, sortie président Macky euh, gis nga ni génn na si euh, conseil présidentiel bi mu doon amal à à Euh, doon attaqué ñi nga xam ne nee nañ dañoo jóg pour yàq réew mi dem na sax bay clash euh, les cadres casamançais parce que xam nga ni temps yi Atepa dafa bind au nom des cadres casamançais ci situation bi donc muy dem ba leen di traité euh, d'escroc naka nga gisee mbir moomule. mais mbirum boobu kaddu président de la république boobu ñu ngi koy ñaawlu parce que moom il est le président de tous les sénégalais. te képp ku doon sénégalais képp ku doon Casamance képp ku doon africain te nga bëgg unité de l'Afrique unité du Sénégal doo ko rafetlu parce que président de la République mooy bàyyi sénégalais yépp kon moom dafa nar a jaaxaanaay moom quelle que soit la situation narul prononcé wu de la de la de la sorte te boo xoole ci ginnaaw ñaata yoon la recevoir les cadres Casamance au palais anaatee la ñu doon fossoyeur ana tey la ñuy doon ay eh, eh, tey la ñuy doon ay ay nit yoo xamante ne amuñu amuñu valeur xam nga loolu loolu loolu rafetul ci président de la république te ñu ngi koy ñaawlu avec la dernière énergie parce que du loolu la Sénégal soxla soxla Sénégal lu mu soxla actuellement ñu nar a jógee ci président de la république mooy faj eh, jafe-jafe sénégalais yi mooy taxaw jeunesse yi mooy taxaw parents yi mais du lii la ñuy xaar ci moom di ñu ngi koy ñaawlu. voilà euh, beneen euh, ponk moom mooy en tant que jeune naka nga gisee wàllum émigration irrégulière euh, jeune jeunes yi nga xam ni ay góor ak ay jigéen ñu ngi faatu tout le temps parce que ñu ngi jéem a dem Europe wala ñu ngi jéem a dem Amérique naka nga gisee mbir moomu lay. mbir moom dafa métti ci xol mais ñoom lu ñuy def du seen sago bu ñu sagoon ñu toog bu ñu sañoon ñu toog ak seen parents ñu toog ak seen i jabar bu ñu sañoon ñu toog ak seen i doom. mais condition bu fi nekk bu nekk Sénégal ñëpp gis nañ ko ñëpp xam nañu ko te la plupart ñuy jógee fii di dem bitim réew la plupart ñuy jógee fii dem bitim réew ay diplômé lañu ay nit la yoo ne am nañu qualification mais seen réew ñu am liggéey ñu am qualification parce que lépp la ñuy politiser te loolu mënul continuer imaginel jeune bu am trente cinq ans quarante ans nga yeew nga jàkkaarloo ak sa papa nga jàkkaarloo ak sa yaay munoo leen jox même benn benn benn benn morceau de de de de de pain. loolu dafa dafa dafa métti ci xol te dee nañu ba dee nañu ba pare si seen réew moo gën ñi dee ñi dem am espoir comme quoi bu ñu jógee fii dinañ mun a tekki malheureusement dee fekk leen ci mais loolu je pense que c'est encore le le le meilleur choix parce que munoo toog si sa réew boo xamante ne noo def dara. loolu loolu dañ ko ñaawlu bu ñu sañoon jeunes yi yëpp ñu toog fii Sénégal ñu liggéey pour développer le Sénégal mais malheureusement amuñu dirigeant bu ñuy permettre lool du coup jeunes yi sont obligés ñu mun a dem fenn foo xamante ne mun nañ am un lendemain meilleur et cela a toujours existé dans le monde euh, détenu yi ngeen di wooye yéen détenu politique yi bari nañu euh, lan nga si mën a wax Aliou seeni Keita ñu bari nag bëgg nañ euh, ñu euh, ngi xeex pour la libération des détenus politiques loo ciy wax yow actuellement mun nañ mun nañu ne sax ñi nekk si prison du détenu politique yi kese am na ay détenu d'opinion ñaata journaliste la ñuy tëj te yooyu bu ñu koy wax du patriote rek ñoo koy wax sénégalais ñoo koy wax ñaata journaliste la ñuy tëj ñaata citoyen sénégalais la boo xamante dafa jóg wax pour luy jëmale eh, réew mi ci kanam ñi jàpp ko tëj du coup loolu ñaaw dañ ko ñaawlu day am ay manifestation ñuy gën a gaan dox sa soxla ñu jàpp la tëj loolu munu développer réew loolu loolu baaxul ci réew te dans l'histoire politique du Sénégal nombre bu ñu emprisonné ci ay détenus politique ci ay détenus d'opinion musu am te loolu moom vraiment Sénégal nar na dépassé euh, stade bi Euh, beneen laaj peut-être euh, juridiquement wala euh, parce que dossier yi nga xam ni moo nekk ci kanamu Pastef bari na surtout concernant votre leader Ousmane Sonko ci 23 novembre bi ci la war a taxawaat ak kile di Mame Mbaye Niang ca Cour suprême naka ngeen fas yéene organiser wo déjà affaire Mame Mbaye Niang déjà xeex bi ngeen di xeex au tribunal de Dakar pour récupérer seeni fiche de parrainage ak yeneen ak yeneen naka ngeen fas yéene organiser basé wu Aliou Seyni organisation comme d'habitude nu ñu nu ñu nu doon defee la parce que bu ñu xoolee deux ans trois ans en arrière Pastef mu yoon ci ay xeex mais suñu woonee faiblesse te si loolu la ñuy continuer parce que dëgg mooy dëgg mujjee te xam nañ lépp lu ñuy def nii ay tappale la te tappale boobu mënul continuer parce que sénégalais xam nañu seen pexe xam nañu ni nguur gi lu mu bëgg mooy nermeelu candidature Ousmane songo te loolu du mun a jàll. du coup patriote yi pare nañu ak sénégalais yi ak sympathisant yoo xamante ne dëgg la ñu bëgg ak ñoo xamante ne développement Sénégal lañ moo leen moo leen soxla ñoom pare nañu pour xeex ndaa Sénégal mën a dem kanam ndaa le président Ousmane Sonko mun a doon seen candidat. voilà Alhousseyni Keita kon ñu ngi lay remercier en tout cas bu baax a baax ci disponibilité bi. merci beaucoup man maa leen di remercier. voilà Alhousseyni Keita may fàttali ne yow yaay euh, chargé de communication bu parti bi lay di Pastef foofule ca commune bu Niaguis nekk ca Casamance merci beaucoup. merci